ak xaadim sàmb mënuyoo ñàkk ci réew mi ndax léeg-léeg boo demee ba nar a gëlëm ñoo lay ñëw gimmeer ci la wax la yaay kan ndax nga mën a xam fi nga teg sa tànk li ñu def nag mooy dañuy daal di dugg nag ci ñi nga xam ni ñoo ñu fi dajale ginnaaw bi mu xàmmet dalalee gan yi fii ci siège u distingo waaye tamit kii nga xam ne moo di makan te ànd ak Gaston production moom it dalal gan yi dañuy daal di bàyyi nag ñaari mbër yi kenn ku ci nekk nuyoo bu ñu paree nag daal di jox waa CNG ñu wax waaye tamit jox ñi nga xam ne ñooy président des amateurs ñoom it ñu wax bu ñu paree tamit jox Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ni moom it ci Gaston production la bokk waaye tamit suñu mag Alioune Guèye moom it faw mu wax ndax it moom it ci Gaston production la bokk la ñuy def nag mooy jox kaddu gi Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass mi nga xam ni tubaar fa kàll moo fas yéene jàkkaarloo ak Balla Gaye numéro 2 mi nga xam ni moo nekk écurie Balla Gaye le 7 août lay doon làmb ñi nag mi ngi commencé di gën a xeeñ neex te nag ci kanam tuuti di ngeen xam ne làmb ji mi ngi gën a xeeñ neex Gris Bordeaux yi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi waaye nuyu nag assistance bi nga xam ni ñoo fi ñëw tey aouzu billahi min samiil alim min asheytaan irrajim la xawla wala quwata illa billahi al azim ma sha allah la quwata illa billah cheikh ñu ngi ziar assistance bi fi teew yëpp di nuyu ku ci nekk si sa tur ak sa sant di am mbégte teew fii ah distingo distingo se par sa qualité loolu moom yaakaar naa Sénégal gi yëpp xam nañ ko di am contentement trop ci sponsor bi nga xam ne wax dëgg yàlla yàgg na yàgg do gunge euh, suñu père Gaston du tey ay at yu sori la ñu ñi nga xam ne yàgguñ sax ci baamu école xàmmee nañ ko ràññee nañ ko kon boog euh, monsieur le directeur ñu ngi lay am contentement trop ci gunge bi nga ñu gunge bokk ci sponsor yi fas yéen ñu jàppale gannaaw loolu ñu ngi nuyu euh, Gaston production di nuyu groupe la mu ma ne maa ngi nuyu Gaston production rek dama koy jaarale ci makan mu wasaare ko ci ñoom ay Abdoulahat ak ñëpp di nuyu suma adversaire di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal jàmm ak salaam di nuyu suñu rakku mbër yi nga xam ne ñu ngi teew fii di am mbégte wax dëgg yàlla jàkkaarloog tamit suma xarit suma am di jàmm yi nga xam ne ñoo ma gunge. Euh, ku mel ni suma suma jumeau euh, Galas Baye mbenn avec mon frère euh, Seydi Hadj Malick ak Fall ak ñi ma àndal yëpp ak maître ñi ma àndal yëpp maa leen di ziar di leen kontaanee di nuyu Balla ak ñi muy àndal di wax ni rek damay am contentement parfois su ma gisee Sa Thiès dama koy confondre avec mon frère Maodo parce que ñun yàgg nañ ci làmb et c'est des c'est des références parce que mbër bëri ñuy ànd ak moom. wax dëgg yàlla lu ñu ci soow soobee rek du ñoom dama koy jël exemple ci Sa Thiès di ko jël ci Moodo suma rakk parce que mbër bëri na ñuy ànd ak moom te te lu fa yëngu rek ñoo ko yëngu mu nekk xale bu yaru ma koy ma yàgg ko visionné yàgg ko xool ci ay événement di ko wax nii yàlla bu ko seytaane këf parce que ni muy doxalee rafet na sama rakk rek laa koy xoolee parce que tamit am na ay baax baax yoo xam ne bu ñuy gis tey suñu rakk yi du ko def dañ koy c'est des chose à encourager c'est des choses à dénoncer waaw di am contentement trop teew fii wax dëgg yàlla plaisir la di ñaanal nag combat bi nga xam ne combat combat tout à l'heure bi parce que tamit euh, ci combat lañ jógee boo xam ne combat bi passé muy diggante soq ak euh, ak franc ak franc di di encourager soq di féliciter euh, franc parce que boo xam ne ñaari mbër yi dañu jaay kombaa bi. ñaari mbër yi combat bi dayoo bi maam ñoom ñoo ko def. te c'est des leçons à tirer ci génération bi nga xam ne tey dañu toll fo ci niveau boobu. tàcc la loolu waaye. combat. Mm-hmm. bu ñu tegoon téeméeri télévision ak juróom-ñaar ak soixante mille sites internet. te ñaari mbër yi toog fu ñuy toog. mel ni ku yor daayira. combat bi du am ampleur. combat bi du jaay boppam. dëgg la kon boog ñaari mbër yooyu c'est des gosses à féliciter. à encourager pour jeune génération ñuy bàyyi xel ci ñoom. en plus wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan ci dëkk bi jàmm ak salaam li ñuy def nii tey nii dañ ko tal te fekkee ko moo tax ñu def ko dëkk bi temps yi ko waa quoi qu'on dise rek mooy yëngu kon nañu ñaan ci dëkk bi jàmm ak salaam ku jë bi nañu dal ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir bi nañu dawal yërmande jërëjëf. jërëjëf tàccu leen ko bu baax a baax a baax lu waay am jàmm ko gën lu waay ñàkkit jàmm ko gën waaye lii ngeen di def muy làmb dafa nekk loo xam ni day dox ci li nga xam ni moo di développement facteur de développement la ci boor yu bëree bëre bëre waaye tamit secteur la boo xam mën naa dox jàmm ci fànn yu bëree bëre bëre bëri tey jii bi face to face Gris ak Balla Gaye 2 amee ñu bëri fàtte nañ lu bëri focalisé wu ci làmb ji di ci waxtaan kon tey làmb li mu mën a def ci réew mi bëri na trop waaye li lépp it nag jàmm ko waral limu wax ci ñaari mbër yi di Sa Thiès ak Maodo mën naa ko seede ay ndaw lañ waaye ay ndaw yu réew mi ñor lañu saa bu yëkkatee ay kàddu nga naw leen. rawatina Maodo mii dama koy déglu lu bëree bëri bëri muy conscientiser ndaw ñi kon nañu xool ci ñaar ñii muy Sa ak Maodo mii nga xam ni rakku Gris Bordeaux la bu ñu jógee ci Gris Bordeaux dañuy daal di jox Balla Gaye 2 mu nuyoo ñu daal di sóobu nag ci waxtaan wi dëgg-dëgg Balla ñu ngi lay jox kàddu gi. jërëjëf ngi lay bu baax euh, di la ziar di la jox sa ginnaaw ba ñu sant yàlla si julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam sant sama ñaar waajur ñu ñaanal sama papa yàlla na ko yàlla yërëm taxaar ko àjjana moo ñu fa fekk ñaan suma yaay yàlla guddal fanam ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér wat na ndaboocu Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak sëñ Alaaji Malick kër maam Limaamu Laay bu Kunta Njaasaan ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér wat na njabootu maam Cheikh Fall di nuyu suñu père aussi tamit père Gaston di ko félicité ci nga xamante ne mu ngi koy def di dundal làmb euh, léegi comme dafa toog ñun makan ñu ngi lay sant di la gërëm euh, di gërëm suma adversaire yi di Gris di gërëm aussi tamit ñaari jumeaux yi nga xamante ne foo leen fekk ak Gris ñuy ànd tout le temps ñu nekk sumay waaye nekk sumay xarit te Gris Bordeaux moo tax ñu nekk suñu xarit teewul li ñuy def nii aussi tamit mooy suñu métier mooy suñu liggéey di nuyu Maodo bu baax a baax mook ñu ma àndal ñëpp di nuyu Sa ak suma rak suma frère ak Gàpp 2 ak euh, Fils de Balla rawatina école de lutte Balla di nuyu mbër yi nga xam ne ñoo fi teew di suñuy naataangoo di suñuy morom di leen ñaanal yàlla seen carrière lépp loolu ci bëgg rek yàlla ngeen sut Gris Bordeaux wala ngeen sut Balla Gaye numéro 2. donc euh, vraiment di nuyu suñu kilifa Abdoul Aziz Alé Ndiaye di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal jàmm fépp fu mu toog ak njabootam ak famille bi rawatina Baye Ndiaye Mbaye Diop Talla Mbengue ak Simon ak Omar bi nga xamante ne wax dëgg yàlla suma xarit la suma lépp la ak Baara Gueye ak Cheikh Mbacke ak Omar ak Kor Ndiak ak ñi nga xamante ne ñooy sonn ci Balla Gaye 2 rawatina suma dëkk waa Casamance Tukulóor Soose Joola Bay Nunke bàyyiwuma kenn bu ma limee dinaa juum sama mbokk waalo waalo yi rawatina waa école de lutte Balla Gaye rawatina aussi tamit ak waa géejawaay ñi nga xamante ne dañuy béggee Balla war a dë di nuyu suma coach aussi tamit gii di nuyu suma coach Xaadim di nuyu suma coach ñi nga xamante ne mooy Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasoul di sant yàlla nag bu baax di féliciter aussi tamit Sokk di encourager Sokk asafurlah di féliciter Franc làmb bi nga xamante ne vraiment amateur yëpp dañ ci bàyyoon xel làmb ji ñu bëri ko ci jàmm yàlla dogal nag Franc moo daan ñu ngi koy féliciter di ko encourager di ko wax soog démétéo gën a la liggéey parce que tey ñun dañoo bëgg ay ñoo xamante ne dañuy mel ni ay sock wala ay saakees wala ay Maodo wala ñeneen ak ñeneen ñi fi toog ñii ñëpp war ñu mën a ñëw fekk grand yi loolu lañ leen yéene parce que tamit aussi sport moo deme noonu maa ngeen di ñaan a jàmm fee fu ñu toll di xaar leen di nuyu aussi tamit suma famille famille Sakho yëpp maa ngi leen di sant baax di leen gërëm di teg nuyoo bi suma mag suma kilifa Malal Sakho ak suma jigéen ñi rawatina suma yaay maa ngi koy sant baax di ko gërëm ak dëkkandoo yi nga xamante ne vraiment nawaltuñ suba ngoon guddeeg bëccëg di nuy waa golf rawatina aussi tamit euh, waa Diskengo bi nga xamante ne yàgg na sponsorisé suñu papa Gaston di leen ñaanal jàmm li nga xamante ne vraiment ñoo ngi koy liggéey ci réew bi réew bi nga xamante ne soxla na lii. lépp li nga xamante ne rek li réew mi li liggéey la ñun askanu Sénégal loolu mooy lu ñu bëgg loolu mooy suñu mérite donc maa ngi nuyu sëñ Mbacke Diop bu baax a baax di leen wax jërëjëf merci beaucoup. bala Gaye 2 fi réew mi toll di jëx jëxi ñuy xëy di yeewu di daj ci ay musiba yu nekk lan moo ciy kàddoom. waaw kàddu bi kàddu benn la rek nañ jëlaat ci xel yi rek. di la war xeli bu baax a baax a baax eh, ñu yaraat suñuy bopp yar suñuy njaboot parce que tey àdduna toll na foo xamante ne ku ci yarul sa bopp ëllëg loraange rek nga ciy jóre te yàlla nañ ci yàlla musal képp kuy ndaw muy Balla Gaye muy Gris Bordeaux kenn mënu laa may loo amul ku ci liggéeyul ku ci amul jom takk sa tubéy dem ne damay dimbali sumay waajur du ma sàmba tey ngay war a tax ngay reyante walla di def loo xam ne waroo ko def nañu seetaat xol yi liggéey jaamu yàlla politique nag fii lañ ko fekk te fii lañ koy bàyyi ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ mais nañ ci def nànk def ci dal ku yor réew mi ñu xam ne tey kii moom la yàlla suñu borom dénk réew mi ku war a jëlaat réew mi ñu xam ne suñu borom moo ngi waajal keneen àdduna loolu moo fi am mais jarul xuloo jarul rayante jarul génn di def loo xamante waroo ko def say yaay sa papa du nelaw say mbokk du nelaw dara jaru ko nañ delluwaat ci xel yi rek te xam ne àdduna lépp teraanga la nañu dal ànd ak yar ak teggin boo gisee sa mag nga jox ko cër boo gisee ku koo xamante ne moo la magit nga jox ko cër parce que respect fu moomul rek dara du baax kon nañ delloo xel rek kenn ku nekk respecté moromam bu ko defee coow du am dara du am jërëjëf. jërëjëf Balla Gaye 2 jërëjëf Gris Bordeaux kàddu yi rafet na xamuñu fenn nu fenn fu nu demee dañuy ñëw réew mi loolu am muy Sénégal fii la suñuy maam soso suñuy bàyyi sosoo fi ñu sosoo fi suñuy doom di sosoo fi noonu la ñu bëggee suñuy doom sosoo fi waaye suñuy sët sosoo fi réew mi tegu ci jàmm. li may wax jeunesse bi mooy Sénégal dañu soxla ay ndaw yu conscient ndaw yoo xam ni xam nañ lañ bëgg xam nañ li leen koy may te xam nañ tamit fi ñuy teg seeni tànk ndax politicien bi lay xeexloo moo xam ñi ci nguur gi moo xam ñi ne ci kujje gi ñi lay xeexloo bu sambaxloo ñëwee lacrymogène yi jóg xeer yi jóg ñoo ñee ñuy wooye ay leader seeni garde du dañ leen ni nguufaan dugal leen ci ay oto delloo leen ci seeni kër yéen ngeen des ci toolu xare bi ana ñu ci tëj boobu ba léegi ku leen di yóbbul añ ku leen di yóbbul reer seeni yaay seeni papa seeni mag seeni jabar ña faatu woon ana ñu ñàkk seeni yaay seeni papa seeni mbokk réew mi tolluwul foofu nee naa réew mi di Sénégal kenn ku ci nekk boo waxee sa moroom lu bon sa bopp nga ko wax kenn ku ci nekk boo tëjee sa morom ci yoon yaa ko war a yóbbul kenn ku ci nekk soo reyee sa morom yaa ko war a yóbbul yaa war a dëj ndax ñun ñëpp mbokk lañu soreyante fi am rek ndax sant yii fi nekk boo ko kenn ku ci nekk am nga ca mbokk kon nag ay mbokk waruñu xiiroo waruñu ŋaayoo damay naan loo am jàmm ko gën loo ñàkkit jàmm ko gën balaa ngay xam njariñal jàmm dëgg dëgg dëgg nga ñàkk ko yàlla yàlla defal ñu jàmm ci réew mi jàmm nag kenn du ko ñaan kenn du ko ñaan yàlla jàmm nit kee koy sàkku ni koy sàkkoo mooy ku la tooñ nga jéggal ko koo tooñ jéggulu ko réew mi di senegal yàlla nañ ko yàlla ñagal ci barke mag ñi fi jaar ñëpp ma bëgg nag dañu ànd dal ànd ak yar ànd ak teggin wekk suñu mag yi fi jotoon jaar bàyyil ñu réew mi nu ñum ñu fas yéene jëlaat réew mi nu ñum jox ko suñuy doom suñu doom jox ko suñuy sët yàlla nañ ko yàlla defal ci réew mi di senegal bu ñu ci jógee nag dañuy daal di jox kàddu gi alun Guèye bu Gaston Production mu wax ci turu Gaston Production waaye wax tamit ci affiche yi nga xam ni Gaston Production indil nañu ko le set waaye tamit wax ñu tamit Gaston Production ginnaaw affiche yi lan lan la nar Alioune Gueye ñu jox ko kàddu gi moom nag da di sama mag ñu bokk suñu dëkk tey bu doon génn Dakaaru gii di dem ci otom laay yéeg bu ñu eggee kër Momar Sarr mu wàccee ma continuer ba Baraar salaamaaleykum Magu Jàmbur. aleykum salaam marabu Cheikh. maa ngi lay ziar bu baax a baax di la tiitaroo bu baax parce que li nga wax dëgg la ah, mag yow ñoo bokk fi ñu dëkk ñoo bokk lépp mais référence nga royukaay nga ci lépp lu mu munti doon fierté nga pour waalo waalo gi nga xam ne moom lañ bokk mën ak yow maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla sàmm suturaal la eggale la sa mébét fi fi nga ko bëgg a eggale barki yonent bi. Euh, waa kër gi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuy assistance bi ñi fi nekk ñëpp di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi di nuyu ñaari champion yi di nuyu Balla Gaye 2 di nuyu Gris Bordeaux euh, di giri sànq dafa joxe message bu solo muy si diggante Maodo ak Sa Thiès muy nekk ñaari xale yi nga xam ne référence lañu ñuy wax xale yi na ngeen xool si ñoom te mënoon nga ni sama mag mooy bëre rek bu ma ñëwee fii naa fi wane xët xët naa fi wane fit na naa fi wane lu nekk mais yar ngeen fi wane ak teggin loolu na continuer maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax seen carrière yal na leen yàlla sàmm euh, di beral ngërëm nag spécial sama xalif général muy Gaston Mbengue yàlla dafa def ba ma ñëwee Gaston production ba léegi euh, mën naa ni maay doyen bi léegi moom sax vétéran bi la may woowee euh, te loolu yëpp tey mbër yu bare jël na ko teg ko sama loxo ma nekk seen manager c'est vrai que man promoteur la mais en même temps manager la te su ma nekkee manager tey moom moo ma dooleel lu ma bu ma nit ñi xamee ci làmb tey Gaston Mbengue moom moo tax donc maa ngi lay ñaanal di ñaanal sa njaboot yàlla sàmm leen ñoom ñëpp eh, gis naa li nga téye sa njaboot doomu aadama bu nekk tey bëgg nga am papa ju mel na Gaston Mbengue référence la kii référence la fu mu toog da leen dégg muy que ce soit média wala mu toog wéet sama njaboot rek ngeen dégg baat boobu toujours day répété si moom te noonu mu koy waxee loolu noonu lu gëmee te ku si nekk da kay noonu nga war a fonki sa njaboot euh, fu mu taxaw damay taxaw ci ginnaawam bët bi ma koy xool bët boobu la bët bëtu yërmande bu mu am si njaboot bët boobu laa koy xoolee yàlla nag dénk ay soxna yu baax ay soxna yu baax moo tax tey bu amee doom ju mel na màkkan mbeng mi man du ma bett waaw parce que tey ay seeni yaay liggéey nañu loolu ci kër ga moom baay ba liggéey na ko ci kër ga donc màkkan yoon bii nga nekk mooy yoon bu baax bi maa ngi lay gën a encouragé nga gën a continuer ci loolu di nuyu aussi Abdoulahad Ndiaye l'infatigable ka nga xam ni gas boobu mu ñëwee Gaston production ba tey man damaa gën a fri gën a féex te lépp lu ma daan liggéey daanaka léegi Abdoulahad moom mooy def lépp fu mu toog Alioune ci lan nga nekk nañ def lii nañ def lii balaa père di ñëw ah per moom xam nga moom kii rek la bëgg na def nii rek la bëgg nangam nangam yooyu daf may encourage da mu koy seet ci moom tey bu ñëwoon di dëngal ak di def leneen nag tey euh, du duñu suñu toogaay du neex ma moom mais tey dafa ñëw li ñu doon def mu ñëw gën koy yokk laat maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax ci loolu nga def te lii nga ñëw si Gaston Production ànd ak ñun ci liggéey bi gën ñu koo bëgg kon yal na la yàlla sàmm yow it euh, di ñaanal champion yi fi nekk yëpp di ñaanal nag aussi les managers bu baax a baax que ce soit Khalifa moom moo fi doyen maa ngi koy ñaanal bu baax a baax muy manager bu baax muy manageru Giri di ko taxaw te chaque fois fu mu toogee bu joxee kaddu rek nga kontaan loolu la ñuy xaar. may wax ak ko suñu mbokk manager yi nañu xam ne manager waroo jafal taal toujours da ngay wax la nga xam ne moom mooy defar bu xale yi taalee nga ñëw yow nga fay loolu donc xalifa loolu référence la ñu ngi la ci xool bu baax di la bàyyi xel euh, suñu plateau bi nag bii ñu indi nii tey Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux affiche boobu rek jaay na boppam dëgg la tey bu nekk ñaari jàmbaar yi nga xam ne ku seetaan seen premier combat ale boo gis la xale yi naan am na retour moom moo ci nekk tey dañoo bëri ba àdduna bi yëpp kontaan donc ce qui veut dire que ni tey ñi ngi xaaraat njarndeem te bu ñu paree dañuy àndaat bokk ndey bokk ndey ak baay parce que Gris Bordeaux Gris Bordeaux mi toog moom mooy président des des lutteurs te toujours mi ngi yedd xale yi di leen wax fi ñu war a jaar ak lu ñu war a def président loolu ñu ngi li ciy gërëm bu baax a baax a baax vraiment ñu ngi li ciy gërëm bu baax ci taxawaay boobu euh, di ñaan nag euh, ñëpp nañu ñëw soutenir euh, xale yi toog nii tey ñoom ñii tey fi giri teg bëtam fi Balla teg bëtam moom moom fa lañ teg seen bët di wax ne Balla gay mii toog képp kuy wut jàmbaar kuy wut lutteur bu baax di nga ko jàpp <clears throat> parce que référence la ci xale yëpp bu ngeen xoolee asi bu mu am pour ñëw nekk roi des arènes loolu yombul donc xale yi na ngeen gën a xoolaat bu baax fi ngeen di teg seen tànk gën a roy si royukaay yi ñaar ñiy toog man ay référence laa leen def que ce soit Gris que Balla na ngeen gën a xool bu baax si li ñuy def ngeen def ko violence amul benn njëriñ li ngeen wax ci réew mi éducation boobu li ngeen joxe communication bi ngeen def baax na réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk bu tàkkee ñëpp la tàkkal Sénégal rek moo fi am li nga xam ne kenn amu ko benn réew amu ko Sénégal tey bu ñu ñëwoon bëreet mu bëgg tàkk benn kilifa diine taxaw fële ñu leen hee teg leen lii suuf ñëpp teg ko ci suuf loolu ñun la ko yàlla cëraleen moo tax am na lu bëri li ngeen dégg si yeneen réew du ngeen ko dégg ci réew buñ si abusé wu nag buñ si abusé wu may wax lutteurs yi bu leen benn politicien jël ni leen ñëw leen ngeen garde ñëw leen xeexi ngeen dem xeexi bu ngeen xeexee yéen yéenay dese si kaso ba bu leen nangul loolu bu leen ko nangul ma sàmm bu leen ko nangul ma demba toog leen ngeen métier bu noble ngeen am ngeen liggéey seen liggéey jàpp seen liggéey bu leen kenn dugal ma en tout cas man Aliou Ngueye mbër mu may manager doo doo dugg ci politique ci yooyu doo ci dugg kenn du la dugal ci dara may gërëm ñëpp di ñaanal encore une fois sama xalif général ngeen tàccul ma ko ñaanalal ma ko bu baax baax yàlla sàmm ko barke yonent bi jërëjëf jërëjëf Alioune bu Gaston production kontaan nañu bu baax a baax ci kàddu yi combat Gris Bordeaux ak Balla Gaye biñ fi tëggoon ca Léopold Sédar Senghor